spécial pack fête yegg na sama gars ak ren herbe épice waaw waaw sama gaay yi six variétés yoo xamante ne benn bokku seeg <laughs> sama morom. acum sama gars yi xam ngeen ne du ma tëj waaye te du ma ñëw saafonteeg yéen ak ni ma leen sonalee boobu ba léegi marathon ñu commencé ko ci début décembre bi nag ànd ceeg ren herbe épice mais ce fut un réel plaisir sama gars yi xoolal def recette fête yi euh, di leen ko jox benn par benn chaque jour. ñuy def marathon boo xamante ni euh, ren RBPC ci Alphie Cuisine andi leen ay idée de recette xam ngeen nag lañ toll ci jamono joo xamante ni santé dafa précieux santé sax dafa mës a précieux ba tax na li ñuy lekk dañ ko war a saytu ren RBPC nag bu ngeen gisee boobu ba léegi ma ma ciy wax du ay waxu publicité waaw ndax ay produits naturels 100 pour cent naturels ma répété euh, Afrique de l'Ouest ay épices mélange épices yoo xamante ni ay plats sénégalais moo ko tax a jóg number one mooy ren RBPC ba pare andi ay yu simple ay lakk ginaar lakk yàpp mu nekk ay épices yu naturel yoo xamante ne ay herbes aromatique ak ay épices la ñu mélangé def ko ci sachet yi sama gars yi amul daraay additif amul daray conservation ndax loo lekk dafay répercuté ci sa santé nañu lekk lu sell lekk lu sain man daal ba ma tàmmoon ren herbe épice ba léegi mënatuma ko bàyyi du ginaar du du yàpp du jën du légume du nokkos du dara lu ren herbe épice fàtte nee naa la boo amee vingt variétés épices da ngay am inspiration ci li nga war a togg lakk jën lakk yàpp lakk ginaar xam nga yooyu suñu yëf la sebon ñëw poisson ah épices yaasa épices kebab donc loolu yëpp ngeen am ko ci njëg bu xéewale ñu ñëwoon nag ci euh, six variétés yoo xamante ni dañ ko def ci pack boo xamante ni à huit mille francs fii ba le 31 décembre tey le 29 dese na leen quelques jours bu ngeen doxantoo dem foire de Dakar di ngeen fa fekk seen pack spécial Reen Herbes Épices sunu objectif nag atteindre atteindre nañ ko grâce à yéen ñi nga xamante ni yéen a sàlloo di suivre RNB ci plateforme yëpp Facebook Instagram TikTok wala Snap fépp fu ngeen gis RNB bi woote ci numéro bi laal ci épices yi am na ku may jox exemple koo xamante ne Roqaye njaay dafa laajte sama numéro ni dafa dem ci boutique yi di laaj épices lakk gi lakk yàpp xamul fan lañ koy amee mu dem TFM ma doo jox ko sama numéro mu ne ma lan mooy épices lakk yàpp bi fan laa ko mën a amee parce que des fois ñu jàllale message yi nit ñi duñu gis numéro de téléphone waaw ci Roqaye Ndiaye moomu dem ca euh, foire Dakar. jën treize variété épices yoo xamante ne benn bokk seeg sa morom te pareegul entreprise ba muy liggéeyal ba mu ñamee épices yi dafa ne dootu ko bàyyeeti ceebu jën yaasa maafe supp kanja paylaa wala tufe lépp loo laal épices Reen Herbes épices daf ciy dem mu nekk ay épices 100 pour cent naturel léegi nag joyeux Noël waxoon naa leen ko ne année bonne eh, xaar xaar may leen ma tegal sa baaraam ma ñëw bon année, feliz año nuevo, merry, merry Christmas, happy new year, happy new year, happy new year mais sama gars yi kontaan naa ci yéen di leen ñaanal yàlla nañu suñu borom may 2023 euh, bi ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam suñu borom may ñu ci wér may ñu ci xéwal ah may ñu ci abonné ba ñu yegg ci un million d'abonnés yi ndax mën nañ ko sama gars yi kontaan naa ci yéen Alphie kontaan na ci yéen Reen Herbe Épices kontaan na ci yéen je vous souhaite d'excellentes fêtes di leen baalu àq et puis di leen baal et puis di leen jox rendez-vous l'année prochaine ci Alphie Cuisine ñu ñëw ci ay doxantu ci ay promenade yoo xamante ni des fois ñu togg dinañ ñëw ci humeur ndax waxoon naa leen ko dinañu respecter promesse yi et puis jaajëfal leen nuy sama team croustillant sama team poulet sama team viande képp kuy safoo Alphie Cuisine sama maman yi may ñaanal sama bébé yi may seetaan bëgg naa ñëpp sama gars yi je vous souhaite une très bonne année ak ren RBP sama gars yi à l'année prochaine sama gars yi kenn ye asalaamaaleykum Cuisine nuyu naa leen sama gars bii nag la ñuy wax dernière ligne droite waaw bii nag la bii mooy the last <laughs> sama gars yi ci lu ngeen ne ay ca nañ ko tëj nañ ko tëj rek en en bonne humeur waaw comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nañu dem ci fruits de mer ndax euh, moom li mu ñëw ci marathon bi bëriwul waaw tax dafa am ay amateuru fruits de mer yu mel ni Rokhaya Ndiaye waaw entre autres waa tam bëgg nañu fruits de mer trop donc fu fekkee nag fruits de mer euh, daf lay daane recette idéale baa ngi nii mën na nekk entrée boo ci toggee lu bëri mën na nekk euh, repas copieux toujours ñu ci ànd ak Reen Herbes Épices euh, pack spécial fête bi nga xamante ni des na fii ba fête ji di di jeex la voilà recette bu yomb la li ma fàtte teg ci plan de travail bi mooy euh, chapelure bi ak euh, fromage bi waaw moom ca fin ba lay ñëw buñ moment biñ koy gratiner mais dinaa soxla champignon euh, crevette wala gambas boo ci am dina baax mën nga ci yokk beneen fruit de mer lii ay noix de Saint-Jacques la persil lii kii la maïzena maïzena wala farine rek boo ci am baax na soble ak laaj moom laa def fële ci ci coupelle bi donc dañuy dem ci pôle bi transversé dem ci pôle bi defar lu neex defar lu yomb loo xamante ni euh, comme li ma ko waxee léegi mën na servir entrée boo ci toggee lu bari mën na la servir de repas copié bu leen fàtte nag euh, revoir maanaam delluwaat ginnaaw seetaan vidéo vidéo yi vidéo yi jot a jàll nee naa tànn sa bu neex la gars yi ngi xëccoo ñii naan ma côté bi laa jël ñii naan ma déedéet alfi euh, chapon bi laay tànn ñëlee ne ma déedéeti waaye damay dem ci dend bi donc la Euh, YouTube Alphie Cuisine ci Facebook bi ak page Reen Herbes Épices ngeen ci duggee ci Instagram bi wala ci Facebook bi da ngeen fay fekk vidéo yi pour yéen ñuy am euh, lu croustillant voilà dañuy teg diwlin bi njëkk ba Aïcha man nag euh, transition ni crevette di changé gris di dem ci couleur rose daf ma neex man daf ma mës a neex voilà et puis ci fruit de mer bi seetal boobu couleur mu ciy def parce que pay paella voilà paella royal am na ñoo xamante ne ci fête bi dañ koy use lu bëri donc ñuy def tuuti xorom voilà may ko fi benn aller retour soxlawul nag mu yàgg ci taal bi voilà defe naa nii moo de Saint-Jacques yi tamit soxlawul mu yàgg ci taal bi donc nañ leen seppi rek def ko fii ci crevette voilà ci même pool bi ñu ñëw ci soble bi ak laaj bi def ci champignon bi champignon bi moom c'est optionnel daf koy sakkanal rek mais su fekkee amuloo ko tamit bokk si deful garaawul gaaw leen gaaw leen ay wax pack ba léegi mi ngi disponible de foire de Dakar ba le 31 décembre la ba le 31 décembre mën ngeen ko am ci foire de Dakar bi voilà équipe bu Red Air Business mi ngi leen di xaar foofu voilà te ngeen dugalal ma ci commentaire yi lan ngeen di rëgal waaw lan ngeen tànn ci Alphie man gis naa ci biir commentaire yi ñoo xamante ni ñi ngi ci chapon bi chapon démb bi am na ñoo xamante ni ñi ngi ci côte de veau yi voilà voilà ñi ngi ci dernière recette bi voilà marathon ren Hervé Plus ci Alphie Cuisine bi nga xamante ne euh, commencé na depuis début début euh, mois bi crème liquide voilà crème liquide bi laa koy ñuuluge seetal boobu couleur léegi nag ñu delluwaat ci fruits de mer yi ay ca ok mu ñeexe noonu voilà benn kuddu maïzena rek moo koy faral voilà voilà gis nga couleur bi mu ciy def mi ngoog yëf ya dikk na ay ca persil bi rek a ci des léegi nag persil bi voilà texture baa ngi nii texture bi nii lay mel voilà. gratin baa ngi nii maanaam sunu préparation bi. voilà moom la ñuy répartir ni ci ñaari ci ñaari bool yi pour mën ko def dugal ci four voilà am na yoo xamante ne nag waaw mooy ëpp noix de chapelure laa mixé fii mburu moom lañ ciy wis ni mooy andi effet croustillant bi e, effet croustillant moom du mën a ñàkk ci Alphie Cuisine loolu moom war ngeen ko mën miin sax léegi ñu daal di def fromage mën nga boo amee sa gruyère parmesan laa am boo ci am mbaax na ñu jël nii wis fromage léegi nag dugal ko ci four bi gratiné ko pendant cinq minutes rek ba mu dooree loolu rek moo ci des. waa ay ca waa Alphie Cuisine yëf yaa ngay gratiné wu yëf yaa ngi croustillant la yaa ngi nii. ay ca mi ngoog ah wuyul wuyul wuyul seetal la mu couleur seetal la mu doore waaw nii daal lañ koy terminer sama gaay waaw nii lañ koy terminer bégg naa ñëpp sama gaay yi je vous une très ak Reen Herbes sama gaay yi à sama gars yi kenn spécial pack fête yegg si na sama gaay yi ak Reen Herbes waaw waaw sama gaay yi six variétés épices yoo xamante ne benn bokku seeg sama morom